ñoo ko ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, maa ngi santal bu baax yi ñu jot tey le conseil constitutionnel bu kuréel bi ko war a joxe joxe ko muy wane njeexitali élection bi ñu defoon le 24 février. 2019 muy élection président de la République suñu borom ci mbaaxam def na ba yàlla may na ma ci ndam ci wàllu résultat yi conseil bi confirmé na ko kon coalition Benno Bokk Yaakaar candidat moo gagné élection ñu sant bu baax suñu borom di sant nag Sénégalais yi d'abord si seen taxawaay ndax wane nañu ne gëm nañu seen système démocratique gëm nañu ne seen wote du nax saay te ñëpp ñu teewe élection bi xam observateur yi ci biir réew xam na ne ñu bëri la ñu wala de plus de ne ci wàllu leeraayu élection ak jaar yoon élection bi ñu jaar organisation bu mucc ayib loolu amul benn gàllankoor ak benn tolof tolof loolu moo waral ma Sénégal yi tam seen taxawaay gis nañ ko ndax téeméer boo jël suñu dund woon juróom benn fukk ak lu topp jóg nañu gaaw loolu nag dafa taaral suñu démocratie taaral taxawaayu Sénégal ci Afrique ak ci àdduna bi kon Sénégal yi lañ njëkk a sant ñu lañ njëkk a gërëm bu loolu weesoo ma gërëm nag ñi nga xam ne tam taxawal nañ moom wooteel nañu moom ah, ñun d'abord coalition bi bokkoon langue ànd ak man ñu tuddee coalition Benno Bokk Yaakaar yàlla def 2012 ba tey ñu ngi am ak man ci liggéey bi ak lu ëpp benn bokk yaakaar coalition majorité présidentielle mooy leader yi ren yi ñëw bokkaat ak ñun ànd ci élection yi ñu jël moroom muy élection 24 février di sant yi électeur yëpp ñi nga xam ne taxaw nañu wote ñu waaye di sant yi ñi nga xam ne électeur lañu te wote luñu ndax si démocratie lañu ne loolu xel yi a ak te la gën a loolu ci lañ ko fekk te it dinañ jàpp ne ñoom ñooñu bañ a bokk wooteel moom wooteel yeneen i xam ne noonu la démocratie bi doxee na leen leer na it danaa def jàngat ci bi ñu def moom moo waral loolu la ñu wala lan la président wala def lu mu defuloon ñu taataan xalaat yooyu yëpp moo tax ma ne sama taxawaay tey en tant que njiitu réew mi kàttanu suñu borom ak bëgg-bëggu askan wi sama taxawaay mooy tàllalaat loxo nag Sénégal yëpp muy opposition bi muy force vive muy société civile ci loolu tàllal naa sax loxo ñaar ñi ma jiitu woon te nekk bi muy président ak président ak ñoom ñoom ñu ngi seen xalaat koy donc doog waxtaan si li nga nit ñi jàpp nañu ne war nañ ko waxtaanee waat ñu mën ko waxtaanee waaye du dee ñu jàpp ne Sénégal démocratie la boo xam ndax loolu mooy li am c'est une démocratie majeure boo xam ne amul dara dara loo xam ne am na lu ñu mën a danañ ne parrainage bi xëy na contrôle bi sévère na wala lii wala laa yooyu yëpp mën nañ ko waxtaanee ci kaw muy waxtaan boo xam ne bu ubbeeku la du am benn condition ni de la majorité ni de l'opposition dañuy doon waxtaan xool fan lañ mën a avancer su loolu weesoo it ma sant nag ñi nga xam ne ñoom laa dénkoon en tant que président de la République du gouvernement bi organisation élection ba mu tàmbali ministre de l'intérieur yomb la ñëppoon ko doon xaar si loxo bi nga xam ndax tolo tolo dina am waaye nag foofu amul ñu doxteel ko police de loolu ak ñëpp ñu nekk ci circuit bi direction générale élection muy administration territoriale surtout administration territoriale gouvernement Fouta. te Sénégal suñu système électoral dégg naa en tout cas ñu bëri ak feneen tey le système bii ñu bëri mën nañu ko copier ndax système bu élaboré acteurs politiques yi ñu ngi parti coalition yi mais surtout kuréel bi saytu leeraayu élection muy Sénat procession depuis inscription sur les listes électorales, distribution des cartes, bureau de vote électorale des cartes, petit dépouillement de la commission départementale, bureau de vote d'abord par bureau de vote. fukki junni bureau de vote ak lu toog bi yàlla yëpp am nañ ko seen représentant donc loolu dafa nekk système bu am solo te it lépp luy saytu résultat yi justice moo koy tribunal muy commission départementale délégué cour d'appel ñoo ko nekk muy commission nationale muy conseil constitutionnel bi nga xam ne nag moo jël décision bi donc loolu lu taaral démocratie Sénégal te démocratie dañ koy toujours gën a avancé loo gën ko euh, defaraat moo tax mën nañu waxtaan toujours pour gën a gën a jëmale démocratie bi ci kanam jàpp naa ne man sama bopp am na lu ñu war a mën a améliorer mais c'est que wàllu joxe résultat may félicité parce que depuis élection bi yàgg yàgg grâce ak résultat yi ñu joxe instantanément ci bureau de vote mais kenn amatul benn jafe-jafe te xam lu xew. loolu dafa nekk un élément de transparence bu am solo boo xam ne presse bi jox juróomi ñu du kële leen ndax ci euh, saa si pour 18 heures jotee ñëpp daañu déglu ñu compris candidat yi seen y compris administration parce que presse bi moo gën a gaaw ci ci loolu tam lu solo la jàpp na waaye nag ci diggante xam résultat bi ak dañ koy wax dana des ay ñett ñaari fan ñetti fan xëy na loolu tam ñu ko mën a yor donc war nañ mun waxtaan ci wàllu système électoral le système politique wàllu opposition statut chef de l' opposition donc yooyu yëpp war nañu waxtaanee joxe woon naa ci déjà sama xalaat d'accord naa bi ndax constitution xam ne moo ma référendum bi nañ ko defee ci laa ko dugaloon ñu wote ko loolu kon loolu yëpp nag lu ñu war a la ci dal maintenant que élection yi jàll na ah war nañu am waxtaan aussi si dëkk bi koom-koom réew mi ak ressources euh, waxtaan waxtaan boo xam ne njëriñu réew mi la loolu moo doon li nga xam ne tey bëggoon naa ko wax te ñu xam ne wàllu na fa ñu jëm damay bàyyi ne waxtu def prestation bi jot ndax ci la mandat bu bees bi di tàmbali fii ba le 2 avril mandat ba la ñu génn moom mooy toog à partir du 2 avril nag président bi ñu fàttee incha allah euh, dana wax ak ay xalaat ci doxalinu réew mi ak li ñu jëm maa ngi leen di sant ñëpp di leen gërëm